mais dëgg appel bi ñuy def mooy comme li ma ko waxee rek tout à xam nga natt bu dalee ci cim réew ci nekk donte même bu doon 1000 francs nga yor sax moo ngi koy yëkkati ñëw indi boo yorul dara sax même bu doon benn peelu suuf nga mën a tibb ngir jàppale askan nga ñëw def ko ndax askan wi da soxla loolu nag bu ma koy wax damay sànni damay bàyyi xel une certaine opposition ba nga xam ne. ñoom yàkkamtiw lu dul nattu dal ci kaw doomu aadama yi ñu koy politiquer am ñenn ñi sax dem ba naan Sénégalais yi li leen dal Macky Sall moo leen ko teg muy wax bu ñaaw bu ñuy naqarlu gàtt gis-gis ak gàtt vision weesuwul tey jii nit ay nit am ay naqar nga naan li leen dal nit moo leen ko teg loolu du waxi nit.